asalaamaaleykum fidèles téléspectateurs et internautes de dakarnet point com tey nag ñoo ngi fii diwaanu Rufisque fekk si fi ki nga xam ne mooy Amadou Samba nekkoon euh, candidat à la mairie de la ville de Rufisque tey nag euh, ñu war ko dalal waaye tamit war ko laaj ay laaj yu am solo Amadou Samba mu nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu ñi ñuy seetaan ak ñu ñuy déglu yëpp di leen ndokkale si élection yi fi jóge ginnaaw buñ la nuyoo ñu laaj la coalition bunt bi nan la juddoo. waaw jërëjëf coalition bunt bi Rufisque euh, comme que moom laa représenté moom laay wax alors bunt bi union citoyenne bunt bi parti la bu exister au Sénégal alors ñun ñi dëkk Tëngëj nekk ay candidats euh, fii si Tëngëj nekkoon le président Arona Sarr à l'est le président. Abdoulahat Diakhaté à l'ouest le président François Babacar Touré ak man ñu ànd fii si Tëngéej bi muy door dañu amoon euh, soxlawu bokk si élection yi alors loolu waral ñu daje woon ak euh, plateforme yu bëri euh, plateforme yoo xam ne mën naa ko tuddee ay parti yu nekk ci réew mi ah ñu doon nag waxtaan ak ku si nekk ci ñoom pour xam kan moo gën a méngoo ak ñun donc li ñu bëgg mooy falee ko mu nekk parti bien constitué falee que mu nekk ñoo xam ne euh, dañu diggu dóomu maanaam rattaché wuñ cent pour cent pouvoir rattaché wuñ cent pour cent opposition en tout cas ñun loolu lañ bëggoon bi ñu waxtaanee ak ñi ñu xam yëpp ñu waxtaanaale nag ak union citoyenne bunt bi ah si suñu waxtaan ak ñoom nag ñu tombe d'accord gis ne ñoom ñoo gënoon méngoo ak li ñu doon wër alors loolu moo indi ñu dem si union citoyenne bunt bi léegi nag ñu am suñ coalition union citoyenne bunt bi Rufisque ma jiite woon ko union citoyenne bunt bi Rufisque nag dafa nekk benn plateforme boo xam ne c'était pour aller aux élections locales yu deux mille vingt deux yi et añ amawoon suñu indépendance maanaam du union citoyenne moo ñu doon dicté lu ñu def programme yi ñu yor ñoo ko defaral suñu bopp fii lépp lu ñu doon def suñu activité la naam nag seq nañu ak ñoom jàmm. ah jox nañ leen tamit suñuy pièces d'identité yëpp pour ñu xam ñooy ñan jox leen suñuy CV wax leen li ñu bëgg a def ñoom tam comme ni ñu waxee ñoom li ñu bëgg def mais ñoom dañu yor seen parti ñun ñu nekk ñoo xam ne dañu am ay mouvement ñi am parti comme man dama jiite parti bu tudd alliance nationale pour un développement durable et responsable mais suñu récépissé gënagul woon loolu moo indi ñu jaar ci union citoyenne bunt bi. Euh, ma taxaw foofu euh, du yàgg dara dégg nañ fi benn information euh, jóge ci ki nga xam ne mooy Farba Ngom muy wax ne euh, Union Citoyenne bunt bi ci biir APR la bokk parti au pouvoir loolu loo ci loo ciy wax. waaw moo tax may leeral toujours Union Citoyenne bunt bi Rufisque ndax mënuma tontu si tiñu turu waa Union Citoyenne yëpp mais li leer mooy man mun naa wax si sama tur lu leer nañ ma benn parti contre ma benn parti bi ma commencé ba léegi plateau bu ma toog. dama koy répété lu tax ma koy wax mooy noolu mooy nekk ndax su ma ne benn parti laa bokk mooy waxuma dëkk alors li si des mooy xam naa nag ay nit yu nekk si opposition ak yone ne pouvoir ñu nekk ay xarit waaw koo créer parti nga ànd kook ay nit ñu def suñu age publier ko d'ailleurs age bi sax ni ñu ko defee defe naa parti yi ko def bëriwul AG bi bi ñu koy def dañu oo Sénégal gépp forcé wuñ kenn yebuñ kenn si kaar ñu am suñu alliance nationale pour un développement durable et responsable alors union citoyenne bunt bi ba ñu waxtaanee ak ñoom ñoom si li ñu ñu tontu bokkuñu si pouvoir bokkuñu si opposition d'ailleurs loolu moo indi ñun ñu ànd ak ñoom cheminer maintenant si seen biir a ah, ndax am na ñu nekk si biir opposition ñu ne si biir pouvoir loolu mënuma si tontu man li ma mën a tontu mooy man El Hadji Amadou Samba ak ñu ñu àndaloon fii bi ñuy dem si élection dañ fa dem pour nekk fu diggu dóomu. deuxièmement man personnellement bokkuma benn parti awma carte ci benn parti ku génnee carte xanaa mu fexe walla mu sos walla mu inventé mosuma inscrire si benn parti d'ailleurs looloo tax ñu am ñu mun ma jiital pour ma jiite parti bu bees bu ñuy wax alliance nationale pour un développement durable et responsable ñu koy ooyee ànd R walla ànd responsable en tout cas tontu naa si question bi tellement de fois xam naa nag c'est c'est de bonne guerre di nga gis nit ñi tout le temps Euh, lu tax waxuñ ko woon avant lu tax avant ñu démarrer neewuñ ñun dañu bokk APR mieux euh, ñi ñuy wax fa lañ bokk wala bokkuñu fa euh, defe naa ko gis ñun ni ñu doon démarrer si politique ak ni ñu si sonnee ak noo propres moins war a xam ne buñ bokkoon si yenn parti yi xanaa dina gën a yomb si ñun ndax nag ñun dafa am lu ñu tëddee dafa am lu ñuy doxee am lu ñu gëm ah li leer daal mooy defe naa question boobu tontu nañ si tontoo ñu mais merci kon bu ma la bu ma la déggee bu baax maanaam euh, li nga xam ne moom la fa Farba Ngom yëkkati muy tuuma kon euh, du dëgg. waaw tuuma bi de personnellement encore comme li may wax mënuma tontul nag waa union citoyenne buntu bi au niveau national comme je dis dañu ànd si benn élection boo xam ne mooy élection locale moo tax ku xool sax samay bind damay bind toujours union citoyenne buntu bi Rufisque président bi bu mu fi ñëwee tam wax na lu leer si man la jaar pour ñu wóolu. pour ñu dem parce que avant ñuy dem ñoom tam dañ ne duñu ànd ak koo xam ne amoo yenn profil yi ñu jël sama CV xool a ah, yàlla dogal nag ki ko jiite tamit ah mu dëkk si dëkk boo xam ne peut-être euh, peut-être euh, am nañ ay liens peut-être mbokk mais loolu taxul ñu ànd ndax xaw ma ko woon personnellement avant donc li tax ñu ànd mooy profil yi ñu am alors ñu ñu àndal tam ñu toog ndax ñun dañu démocratique man kese jëluma initiative ne nañ dem si union citoyenne bunt bi yeneen plateforme itam bugguma leen citer ma citer si benn avec ak yeneen tamit yu ñu saisiroon pour ñu ànd nous avons évalué plateforme bu si nekk ñu dajeeg yow waxtaan nga déglu ñu ñu déglu la man ak le président François Babacar Touré le président Aaron sar ak ñeneen ñi ñu ko bokkal donc loolu indi bi ñu waxtaanee ñu gis ne plateforme yëpp critères yi ñu leen tëraloon ñoom ñoo si gënoon répondre critère bi ñu bëgg mooy koo xam ne dafa équidistant alors loolu moo tax ñu ànd ak ñoom alors moom la mu wax nag man munuma ko tontu directement waa union citoyenne bunt bi au niveau national en tout cas ñoom liñ ñu tontu woon mooy ñoom dañu équidistant du pouvoir et de l'opposition alors ñun loolu lañ doon wër ah loolu nag mun naa ko tontu mooy ñun daal li ma wóor mooy ñun on est équidistant bi ñu dem élection ba tey de tous ces deux blocs voilà kon defe naa ne li ma wax foofu noonu leer na ñoom dañoo équidistant et que ne moom bokkul ci parti au pouvoir ni parti de l'opposition kon ma laaj la nan nga dundee élection yi. waaw merci beaucoup élection yi nag defe naa élection moom yombul dafa laaj liggéey bu bëri travail de longue haleine ah alhamdulilah nag nous nous sommes une plateforme mooy li ma la wax sax bi ñu créé suñ plateforme ak léegi euh, bi ñu démarré activité yi peut-être su motee at bu teg tuuti si layam mais bi ñu déposé suñu récépissé ak léegi moom motul sax at looloo tax d'ailleurs ñu jaar ci union citoyenne bu ñu fa fallait qu'on aille aux élections loolu le portage defe naa <laughs> surprendre kenn Sénégal beneen bi moo doon nga dem sa tur bopp ak euh, ndëgg sërëx yi si mën a am mais les conseillers politiques yi ñu am yépp dañu ne bu leen dugg ci yoon boobu parce que mun ngeen dem déposer seen caution indi seeni euh, nit ñu ne leen am na lu si baaxul cause pour laquelle on a des personnes qui gèrent les risques dans plateforme pour éviter ces risques moo tax ñu jaar ci benn plateforme mais ni ñu dundee élection yi mooy résultat yi ñu am. question euh, li mooy metti mooy dañu jël suñu doole jël suñuy revenu personnel suñu plateforme étudiants yi sax dañuy cotiser ku nekk li nga am ngay joxe ku am fukki dërëm joxe ku am téeméer joxe ku am plus joxe alors suñuy revenu personnel la ñu jël utiliser ko si suñu campagne. alors looloo tax faut que euh, euh, suñ naan état daf ñu financé bon parfois sax daf may du dama naan daf ñu metti lu tax mu ñuy metti tam mooy euh, ay nit yu dajale seen alalu bopp seen doole bopp am seen gëm-gëm nag dem def politique faut que ñu respecté leen mais nag nit ñi ni ñu mel rek lañuy ñu defee la ñëpp mel xam dafa am ñoo xam ne bu ñu dëngee wala gëmuñu dara defe nañ ne kenn gëmul dara amuñu pas-pas amuñu pasteef defe ne kenn amul pas-pas kenn amul pasteef waaye nag bu soobee yàlla dëgg mooy mujj ñun. suñu doole bopp suñu gëm-gëm ak li ñu am la ñu boole dem élection encore di sant yàlla si performance yi ñu def ndax pour une première participation pour une plateforme si jeune ñuy égaler ay parti yu am trente ans ay coalition de parti même au niveau national loolu dañ ciy gërëm suñu borom mais itam di gërëm les Rufisquois et électorat de qualité boobu wóoluñu ba ñëw ànd ak ñun donc loolu dafay nekk loo xam ne dañ siy sante borom bi euh, euh, di si sant aussi ñi nekk si suñ plateforme yi muy union citoyenne bunt bi Rufisque plateforme alliance nationale pour un développement durable bu Rufisque ak yeneen plateforme yi nga xam ne yeneen candidats yi ñu àndaloon ñoo ko jiite. Euh, dégg nañ ne dafa am ay irrégularité yoo xamante ne dafa am ci biir coalition yu bëri mais rawatina ci li nga xam ne mooy élection yi ñu naka nga ko dundee. waaw irrégularité yi moom defe naa ak li ñu noté bëri na euh, ñun suñ bopp te defe naa loolu ñu ko mën a seede bëri na suñuy représentant avant ñuy accéder si bureau yi benn instant euh, dix heures trente weesu na à un moment ñu génneewaat ñenn ñi si yenn bureau yi yemul foofu bi ñuy def décompte yi am na PV yoo xam ne parafe wuñ ko si ñëwuñ ko am yoo xam ne dañ leen génnee aussi fekkee wuñ décompte bi et ñun représentant yi ñu am am na si. façon nit yu bëri fayuñu kenn jënduñu kenn d'ailleurs loolu tamit sénégalais ak Rufisquois mun nañ ko seede beneen bi mooy euh, euh, gis nañ ger bëri na trop si suñ gox yi ndax dangay toog si bureau de vote nit ñi di gis nit ñii mu yor xaalis dinaa nit am pour nga votel ma wala yor saagam ubbi ko naan la gis nga bulletin bi moom ngay vote soo paree indi ñu yeneen bulletin yi ñu fay la moo tax ma ne ñun électorat bi ñu am li ñu leen di gërëmee mooy électorat de qualité mooy kenn jëndu si kenn kenn fayu si kenn kenn geru si kenn gëm-gëm moo ñu si dugal et le temps nous dira ndax nag la victoire euh, nee nañ raison bi si kanam mooy tax ñu gën a xam ban façon victoire moo gën en tout cas euh, si si gàttal am na ay mbir yoo xam ne ñu doon suivre suñu compte Facebook yi gis nañ yenn alertes yi ñu doon joxe ak tamit yéexaay bi résultat am fii si Tëngëj ah espérons que tout s'est bien passé waaye daal yéeme na daal su ma ko mënoon wax. Euh, lan ngay conseiller nouveau maire yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Rufisque. waaw maire yu bees yi nag dañuy am mbégte di leen féliciter d'abord di leen ñaanal si sama tur turu plateforme bi nga xam ne moo ñu porté woon muy union citoyenne bunt bi Rufisque mais aussi turu plateforme yi nga xam ne ñoo ko wër yëpp ak turu ñi ñu ko àndal ah di leen ñaanal seen mandat bi ñu am yàlla yombal ko te ñu transformer nos localités di leen wax ne ñun aussi li ñu leen mën a gunge dinañ leen ko gunge et tànk ñu ngi tegu si yoonu jub yoonu defar bu ñu fa tegee tànk nag ah ni ñu defoon rek mooy dinañ leen ko yëgal wala nuule les mais daal li ñu leen di ñaanal mooy ndam si li ñu dëgmal te di leen félicité waat te di leen ñaanal jàmm di ko ñaan si suñu gox yi particulièrement si tëngéej gi ñu dëkk lan mooy say euh, perspective plan politique à l'avenir waaw euh, fi ñu fas yéene jëm defe naa ku créer parti ak ña ko créer ñoom ñoo définir li tax a parti parti yëpp conquérir le pouvoir que ce soit le pouvoir locale ou un autre type de pouvoir euh, bi ci des mooy ñun yàgg nañ ci politique de développement dëkk ñu nekk ndaw loolu duñ ci teggi tànk avec des actions citoyennes et responsables beneen bi mooy fi ñuy jëm nag politiquement échéance yeneen yu ñëwaat munaguñ ci tontu directement parce que comme je dis on est dans une démocratie dañuy waxtaan ak ñu ñu ko bokkal ñoom lu ñu décider rek ñun loolu la ñuy def en tout cas suñu yéene mooy la transformation significative de nos localités le développement de notre pays maanaam suñu réew am na perspective yu ko may mu mën a suqale ko mais aussi le changement de mentalité dans ce continent ou il faut que surtout la jeunesse gën comprendre les enjeux mais aussi les défis à relever et loolu defe naa élection yi wane na ci dara et ñuy ñaan suñu réew suñu dëkk ak suñu continent yal na fi yàlla indi xéewal indi fi luy tax ñu suqale ko si nu mu gën a gaawee. ndax di nga wéyal sa ànd ak union citoyenne bunt bi. waaw loolu laa wax tout du man maa koy décider ndax bi ñuy dem union citoyenne bunt bi plateforme bi ñuy wax ànd ñoo ma jox carte blanche pour ma waxtaan ak. ñu ñu allié woon à Rufisque ñooñu itam bi ñu àndee du man kese maa négocier ak union citoyenne bunt bi ñun ñëpp ñoo ànd négocier alors comme je di pour les prochaines échéances électorales pour wax ko directement muy les législatives nit ñi nag ñu ngi ñuy woow fu ne du ñu encouragé et je pense que c'est noble ñu leen siy gërëm mais je di ko du man kese maa koy décider suñ plateforme dina daje muy ànd d'abord ñu waxtaan mais au-delà ñi ñu ñu bokkaloon union citoyenne bunt bi ñun ñëpp dinañ daje évaluer et je pense que politique comme ñu ko ñëpp di waxee nag addition la suñu sañoon nag dañuy gëna nekk mbooloo di ànd opposition ak pouvoir tam ñu ngi fi ñu ngi ñuy woo pour dire vrai ku si nekk am na ñu ñuy woo du ma tudd tur pour ñu ànd ak ñoom c'est de bonne guerre c'est normal alors loolu du man kese maa koy décider ndax ñun suñ plateforme comme ni ma ko waxee démocratie moo si dox dañ koy waxtaane lu si gën te ñu yaakaar ne moo gën si suñuy gox gën si ñun askan bi ah boobaa tam dinañ ko siiwal ñëpp xam ne lii lañ décidé mais lépp lu ñuy dem rek mooy loo xam ne dafa am valeur mais aussi dafay prôner la développement durable et responsable c'est-à-dire gëm-gëm bi ñu am ci ànd pour suqali suñu dëkk ak suñu réew. kon ma jaajëfal Amadou Samba di la bàyyi nga tàggatoo. jërëjëf euh, soxna Sophie ñu lay remercier yow tam di remercier sa ñi nga àndal ak euh, waa télé bi ak ñépp ak ñu ñuy seetaan di ñaan rek. Euh, yoon wi ñu ubbi nii yàlla nekk le début en tout cas d'un changement euh, profond et d'une transformation de localité mais aussi de manière plus large d'un développement de ce pays euh, bi nga xam ne si lañ dëkk muy le Sénégal di nuyu ñëpp di leen remercier. kon ñoo ngi leen di jaajëfal fidèle téléspectateur bu dakarnet point com di leen wax ne li ñu mayoon euh, ci ay minutes jeex na daanaka. waaye maa ngi gërëm ki nga xam ne mooy réalisateur bi di Lamine di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.